xibaar bi nag ñoo ko déggandoo ndax naal be nga xam ni dañ ko naalaloon sëriñ Touba ca Ndakaaru muy Masaalikul Jinaan nga xam ni mu ngi war a topp ci toll ci juróom-benn at ak yu topp e, la toll ci fi mu ne bëgg ko ubbi bëgg ko ubbi ci mois de septembre mu coïncider ak ñetti guddi ndakaar yi nga xam ni sëriñ Touba daf ko fa séjourné woon dégg ngeen ni ko Cheikh Mouhamadul Bachir waxe 19 et le 20 kon ci lañ koy ubbi officiellement euh, ñu ciy woo nag ñëpp rek sëriñ bi nee na nañ ci woo toute la communauté musulmane di ci woo bépp jullit di ci woo bépp taalibe sëriñ Touba rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñooy taalibee murit yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi ca jamonoy sëriñ Saliou jaar ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Falilou ak euh, Cheikh Mouhamadou Cheikh euh, Sidi Mokhtar Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ba tey jii mu nekk ci loxoy Cheikh Mouhamadul Mountakha mosu koo génn nag ndaxte ci jamonoy sëñ Saliou ba ci sëñ Sidi Mokhtar moom lañ defoon jëwriñu liggéey bi yàlla def nag bi mu toogee ba tey ni daal nañ fexe ba liggéey bi bañ a taxaw booba ba léegi it nag liggéey bi musul taxaw benn bés fii may wax ak yéen boo leen fa demee ouvrier yi ñoo ngiy liggéey di maanaam nekk ci travaux de finition yi muy liggéey boo xam ne bii liggéey bu rëy rëy la complexe bu rëy lay doon ndaxte day am institut islamique boo xam ne bii bu mel noonu du am sur toute l'Afrique de l'Ouest ndaxte institut la boo xam ne bii liggéey bi liggéey bu yéeme lay doon ak yeneen i commodité yoo xam ne yi ci infrastructure yi dina fa am. comme mu mel ni mooy li ma la wax institut de recherche Cheikh Ahmadou Bamba bi ngay dégg nga xam ne institut de recherche la day am lépp ci biir loo xam ne lu ñuy jàngat lu ñuy découvrir ay musée ak lépp yu jëm ci sëriñ bi ak des salles de conférence ak benn salle boo xam ne dina def cinq 3500 place moom lañ fay def alors loolu nag xam naa ni bu ñu inauguré ba pare rek soobu ci liggéey bi ndax liggéey bi du jeex. sëriñ bi nag bëgg inauguration biñ koy ubbi nu xat-xat ya meloon ci sëriñ bi ci ñetti guddi ndakaaru yi ñu def ca ay xumbeel ak réjouissance yoo xam ne yëpp day tegu ci diine tegu ci sunna ba ba àddinay tukki dinañ fàttaliku ubbi jumaay Masaalikul Jinaan gi nga xam ni Serigne Touba yàlla daf ko ko fay ci biir Ndakaaru. ku global bi c'est hasardeux de le dire comme ça. parce que xam nga fokk liggéey bépp pare ñu def restitution def raccordement ba xam waaye daal li ma lay wax ëpp na ñaar fukki milliards di dem.